Euh, saxaaba yi kenn du ñoom gis nga mbokki taalibe mat yàllaa ko moom mucc yonent yi ñoo ko moom wattu wali yàlla ñoo ko moom alkamaalu lillahi wal ismatu lil anbiyaai wal xifzu lil awliyaai moo tax euh, maa ngi leen di dénk na leen ab ni nga xamee ne ñun ñii kenn mën cee jàq ba naaw ku fi tiitoon da ngay daw mbaa nga waaf waaye mënoo naaw comme picc ab yonent noonu la ko bàkkaar téye euh, moo tax ab yonent du def bàkkaari wax du def bàkkaari jëf ay maasumuuna lañ amut amut fenn fenn fenn ci alquran sunna téere yi wér nga xam ne amul benn israiliyaat nga fay fekk yonantu buy mooy yàlla ci wax mbaa ci jëf loolu nañ ko di bàyyi xel ñoom ñëpp ay maasumuuna lañ ni nga xam ne manqué ni mu téye yàlla mooy yàlla noonu la téye yonantu yi te yàlla moo leen ko may ay maasumuuna lañ wali yu nag ma mahfuus la lii mooy ci moom mën naa nekk ci moom su ko su yàlla coupé courant bi mën na koo def waaye bu courant bi coupé mu ba kon wali yu xifzu la am mais amul ismatu kee moom ko maanaam filee nekku ci moom ba ba lumière di am wala yu nag fiilean ci moom mais bu yàlla coupéwul courant mën na def fàccaan moo tax mën a alkamalu lillahi wal ismatu lil anbiyayi wal xifzu lil awliyayi loolu nañ ko bàyyi xel mbokki taalibe yi moo tax saaba yi maam laaji mu ne man tadako diyaaroom lil faadili génn sa kër romb sa njaboot su meeku ci sa alal ngir yonant saaba yi ñoo ko def وتركوا الأزواج والأموال وتركوا الإخوان والأخوال ما ملاجي من سابي باين سن سغني باي سن ألل باي سن موك باي سن قيول نجرلن آه، نجرلن نجردم وجي وتبيون صلى الله عليه وسلم بلغ ما ملاجي دانا نيوتي لكو يكتي من لنصرة المحمود ذي